ba yàlla jogal ambulance bi taxaw fii ci Bangaaj tey di nuyu it euh, médecin chef bu xombal di ci teg ICP yi nga xam ne ñoo nekk ci commune Thiénaba yëpp ndax sunu ne commune Thiénaba quatre postes de santé la quatre postes de santé yooyu kenn ku ñu bàyyi sa liggéey di ko taxaw kenn ku ne xam na ni lii ñu doxal Bangaaj tey ci teraanga ñoom kontaan nañ ci te àdd nañ ci di sant yàlla bu baax nag di sant président comité santé bi Ousseynou Ngom ndax wax na ko léegi man nekk naa président comité santé vingt ans yu tegal benn at te kenn ku ne xam ne ni comité santé ci norme yi deux cent nga war a am mandat mais yàlla dogal saa bu mandat bi dikkee ñun ma kenn du présenté wu yaa fiy nekkaat bay bi yàlla dogalee nag ma nekk maire nag laa xam ne mënumaa boole lépp may leen tey nag force la looloo ma ci génne eh, di sant yàlla bu baax ci lii nga xam ne moo am bangaaj tey eh, defe naa ne Ousseynou eh, yaak ñaa mi nga xam ni mooy ICP bi ci ginnaaw tuuti waxtaan nanu ngeen aman ambulance bu ngeen bëgg a réparer ma ne asgor mar du ko tax a naan póoti tey leen bi ngeen am bu bees booba yëguma woon lii waaye aman naay xalaat xalaat yooyu ba léegi dañuñu parce que partenaire bi incha allah bi dina jël ay coordonnées kenn ku ne xam le 6 février biy ñëw ñoom ci la ñu war a waaye sa Italie pour yóbbaale communauté santé yëpp ku mën a dem ak benn représentant ci ICP yi ak beneen délégation bu ñuy àndal. kon sunu yàlla dogalee ñëw Italie di leen fexee jokkoo ak yéen te leen doon yóbbu mooy lii rek mais li tax nag mënuñu koo yebbi parce que bu fekkan bii rek moo fi des dañuy yebbi xam ne liñ doon wuti am nan ko waaye dafa des yeneen ñaar mooy jaayaan ak kër yaaba kon su yàlla dogalee ñoo ñu am ay ambulance ñun ci wàllu santé la ca des buñ tëddee nelaw mbaa dinañ ko mën a dégg naa fi it léegi lu jëm ci sage-femme sage-femme kenn ku ne xam na ni diggante Bangaaj ak Jaayaan bu fi sage-femme amul métit dina am ndax ku ne xam na ni cere ba sori nanu euh, kër yaa ba sori nanu xombal sori nanu waaye teewul ñoom ñëpp dañoo àndandoo bokk ndey bokk baay kenn ku ne sa bopp bu dee metti sa bopp moroom metti ci poste de santé bu Jaayaan ñu ngi ci sept yoo xam ni sage-femme bi maa ko doon fay te loolu nag état bi war na ko yëg bu baax ndax docteur bi nga xam ne yàlla dogal na moo nekk xombal di médecin chef district yëg na ko jot na demande yi jot na demande it bangaaj kon fi mu ne taxaw nanu pour am sage-femme ci suñu ñaari poste de santé yooyu ndax jot na boo gisee poste de santé bu jaayeen engagé wu weer wu dee ñu fay sage-femme bi mais dafa mënta ñàkk te état envoyé wu ñu sage bu fi mën a nekk defal nañu ay pexe sax ba ki nu njëkk a jël ñu déposé ko dossier ba yàlla dogal état bi jël ko mais nag dañ koo fab yóbbu feneen ñu dellu jëlaat keneen di ko fay loolu monsieur Tandian na ko première dame yëpp parce que nag ci jigéeni Sénégal moom la ñu tànn mooy première dame kon lépp loo xam ne jëm na ci askan wi waaye jëm na ci jigéen ñi. lépp luy saafara war na koo yëg waaye lépp luy naqarit war na koo yëg ndax moom lañ ci yaakaar di sant bu baax a baax monsieur le préfet bu baax dinaa ci dellusiwaat euh, président Mbaye Samb wax na ko léegi nee na tombé waral ay gaaf waaye yàlla dafa dogal su préfet bi mu fiy ñëw dafay ñëw ak yéene ñëw fi ak xol bu sedd waaye ñëw fi ak xol bu tàlli parce que nit bu xolam tàllee boo ko xoolee ca kanam nga ca nga koy jëkk a xam mu ñëw wàcce boppam ba mën a ànd ak ñun kon su préfet ñu ngi lay sant ñu lay gërëm wax na léegi ni kere bi mu jëkkee ñëw bagage lañ fi jëkk a mat andi matériel boo xam mësu fee wàcc mu ñëwaat fi tey ñu wàcce fi matériel bu fi mësta wàcc waaye dina fi ñëwaat suba ñu andi fi lu fi mësta am ndax ku ne xam na ne ambulance bii taxaw bu dee daw diggante Fandène ak Bangaaj jëm kees bala ngaa am ñetti weer wala ñeenti weer mu yàqu ndax kii suuf taxu koo jóg mais kii ay kàmb taxu koo jóg euh, ñun nag euh, bi ñuy xeex pour nekk maire nekkuñu maire pour postu bi ñu jox danoo nekk maire pour défendre suñu askan ñun boobu taxawaay la ñuy taxaw léegi fii ma toog rek ci laa mujjee woo ministre bi dafa sone ba coupé jërul parce que li mu wax nag man bokkul ak lii dama waxal ne ma weer wi ñu dugg balaa dee ñu commencé propagande day sàmb dawal naa sama oto ba ñëw ci yow ñu la ci ministre bi laa jóge waa assuré accordé nañu nee nañ dinañ tabax euh, dinañ defar pont Bangaaj balaa weer wee dee mais loolu su weer wi dee te amul mais ku ko déggan dina ne maire la mu waxan amul mais lii moo tax amul dafa fekkin nag moom itam yéene bi ma am moom la ci am assuré dafa am lu sarse ci boppam loo xam ne dafa da ko ëpp doole. parce que kenn xanaa xam na ne programme mu 2016 euh, bi 1000 euh, kilomètres la ci am ci programme 1000 kilomètres boobu ñaari kilomètres lan ma ci sédd mais nag programme PDC bi mooy faj sama saafara ci commune Thiénaba parce que barki démb rek ci bu yàggul programme bi war a jóge ba ñëw Bangaaj jóge Bangaaj dem Ndindi Aan jóge Ndindi Aan dem Jaayaan jóge Jaayaan dem Kelle natt nañ ko ba pare. beneen yoon bi mu war a départ Touba Toul Kër Ibra Gueye jaar jaayaan dem Fandène kon kooku su demee moom itam fond Fandène bi day daal di saafaraw bu ñëwee jëkkee ñëw moo moonu gënal bu jëkkut a ñëw li ma mën a xam daal mooy fii nu taxawee di ko wax balaa del si déwén yoon yëpp dina jàll loolu laa man loolu nag mosu fee am boobu xalaat ak boobu yaakaar mosu fee am bu ma ko waxee dafa am fu ma teg sama tànk mais dafa am fu ma teg sama wax ndax waxuma ko rek pour lu neex nit ñi parce que bu neexee ñoo koy bokk bu naqaree ñoo koy bokk fii laay jaar bu may dem ba naaj bu may dem euh, caraba xam ngeen ko bu baax te wóor na leen bu xësee taw fii xalaatuma fee jaar sërif loolaay jaari jaar kees soog a dem caraba koo xam sa diggante caraba 9 kilomètres la nag nga war a daw 70 kilomètres aller retour mais neexul kon monsieur Tangna bët bi nuy xool président lan lay xool. yaa ngi monsieur Saw bët bi ñuy xool première dame moom lan lay xool parce que xam na ne lii ñuy wax parce que capacité bi nga am ba wax ak moom xam ne ambulance baa ngi dem bangaaj capacité boobu am nga ko ba lii ñuy wax di nga ko ko wax dam lay yóbbanti ci moom bu baax ne nag am nañ ci yaakaar ci président bu baax lu jëm ci président dañ koy yóbbante su préfet su préfet président yéene bi mu am ci réew mi yàlla na ko yàlla àggale xam na ni am na yéene xam na ni bëgg naa def waaye nag léeg-léeg borom kër am njël léeg-léeg borom am kër am njël ak aawam du am farlu defar ko am na ci nag aaw damay wax lu leer ci presse laay wax dama ne ñun commune Thiénaba gisaguñu bokk suñu bopp ci kay ak Macky Sall gi loo xam day nanu xam nga nag am am lu la doy moom daa yombul am lu la doy daay yombul waaye nag amagun lu dal suñu xel ndax courant bii président wax léegi eh, am nañ ci ñett dëkk yoo xam taal nañ ko kooku il faut ma sant ko président ndax kenn ku ne xam na ne bagaaj ak jaan dal jàmm ñetti fan la war a tàkk ñu arrêté ker di président dem Tiwaawoon laa toog ak Augustin ma ne ko ñetti fan yi wax ni techniciens yi taxaw nañ ca bagaaj ne bu tàkkee ñetti fan mu coupé ma ne ko balaa jant so wala nga wax ma bis bi ma lay woo nga wax ko président ne ko sama courant bagaaj ak jaar buñ ko coupé sama politique dina coupé te lu ma ko mën a yàq dinaa ko yàq kooku bi ma koy wax tàggu ma su préfet parce que moom laa war a waxal waaye su ma ko waxee ni ma ko waxee moom du ko wax ndax kilifa la mais avant jant so ci lan ma woo fekk président woo na ma ni ma dama bëgg ñu wàcceel ma fiil bagaaj ndax gàmm bi mais buñ ko coupé wàcce fiil deetu ba mais avant jant so lan ma woo ni ma seetal technicien bu la neex mu wàcceel la fil te sa courant parce ne bu mu coupé loolu nag il faut ma sant la ko ji ba fi mu toll mi ngi coupé matériel bi ci war dem yëpp jox naan ma ko altine dina ñëw te loolu mosu ko am kon président il faut ñu sant ko waaye nag dañuy ñaan mu yokk loxoom bu baax ci commune Thiénaba parce que nag engagement bi lu jël dafa diis ci askan wi mais dafa yaakaaru ci askan wi mais su ma taxee nu su ma sañee su ma señee taxaw di kaas di laaj sama wàll dafa am taxawaay bu ngeen taxaw dama ne département Thiès sama commune taxawaay bi taxaw ci wetu Pata benn commune taxawu ko lan moo tax kenn mësta gis président bu dem élection dem ci ab commune mu am 26 bureaux président ba gagné 24 bureaux yëpp mosul am te loolu ngeen def kon il faut ñu sant ko waaye il ñu laaj ko suñu wàll ñun noonu la ñu bindoo euh, xañ nga waxtu wi xat na. Eh, yàlla dafa dogal lii nga xam ni moo ñëw tey bagaaj loolu moo nu fi andi mais nag cin moom xorom ko yàqu ko ndax in faut ñu xa da ngeen ñuy wax seen i xalaat mais il faut ñu wax leen ñun suma xalaat ak li nga xam fi leen toll foofu ñu toll nag am nañ yaakaar ni balaa yàgg luñ ci war a def bu lépp pare wulit insa bi dina pare trois dëkk yooyu nga xam ne moom lan ma mayande ci courant bi mais mayaat na ma yeneen ñeenti dëkk ci deuxième bi dinañu commencé kër Assane euh, dëkk bi euh, kër Assane ak Mbambara troisième phase bi ci la kër Mbaye Guèye di bokk ak Ngomen Balla kon yaakaar dolliku na te it maa ngi ñaan dëkk yi nga xam ne ñoo aju ci Bangaaj parce que Bangaaj li ko wër dafa bari mais village su Bangaaj dafa yóbbaale amoo yëpp ñoo ñooñu mu yóbbaale nag maa ngi bëri ci suuf pour dëkk yëpp courant bi àgg fa am naa ci yaakaar nag mais nag nit kii bu fekkee ni euh, lu mu wax. ñu bari boog ba wala ñu bàkki ko bu fekkee meluma noonu it ñu bari bàkke ne ma ko mu ni man lu ma mënul duma ko wax lu ma narul duma ko digee moo tax du ma digee du ma wax lu ma mënul mais am naa yaakaar ñi ko yor li ma leen di diis leen ma ko fajal mais diis boobu nag day toge day teg ci ay conditions yu leer kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp vraiment di am yaakaar bu baax euh, waaye su ma waree na waaye euh, samedi loolu ci agriculture la jëm loolu moo tax ma am sañ-sañu ñu ràmbaaye ko xaj na balaa lundi wala mardi dinaa dem euh, loolu may defi nag li tax may dem mooy xëyum ndaw yi xëyum ndaw yi ci boppam moo ma ñor parce que nit ñuy jóge Bangaaj wala ñuy jóge Jaayaan di jóge ci sama commune dem Ndakaaru mais di liggéey bu ngoon ñibbi si mais dafa sàppi nit ñi ci réew mi leen dëkk loolu moo tax ma am partenaire yoo xam ne nii insa rabbi bépp xale bu góor bu nekk ci sama commune te nungoo liggéey ku nungoo liggéey rek laa wax mais ku nungu la kenn mënu koo dimbali kenn deetu xëy ni taxawaalu di nga am foo xëy parce que président Macky Sall moo wax ni xëyum ndaw ñi da koo ñor kon ñun maire yi xëyum ndaw ñi dañoo ñor te incha allah bi dinaa ko saafara nu mu gën a gaawee balaa sama mandat jeex lu ma man dinaa ko def parce que waxat naa fii ci Béntoum Bangaaj ma ne commune bi may laaj bu fekkee ni sama njëriñul bopp rek yàlla bu ma ci jot loolu laa leen waxan kon su ma ci jotee dafa mel ni kon dama doon wàcc mais wàcc naa mais boobu